salaamaaleykum mbokki déglukat yi man la seen mbokk Modou Sabally ñoo pour continuer waxtaan biñ dooroon tuddee ko good morning Gambia time to wake up euh, ñu ngi doon waxtaanee nag mbiri énergie ni mbiri courant ak inflations mooy yokkute yi nga xam ne ñoo nekk di xew si mbiri bagage yi nit ñi soxla pour dundee ko euh, especially nag mbiri dunda ak yu mel noonu euh, wax naa ne inflation bu jéggi dayo di double digit inflation bi nga xam ne Gambia fu mu nekk nii loolu moo fi xew te jéej na fee xew for more than twenty years baaxut si économie bi dafa yàqa économie bi dafa tax ne suñ koom-koom bi yokkute bi mu war a yokkute du mun a am euh, yokkute boobu du mun a am ba pare lu si gën a garaaw mooy euh, inflation especially double digit inflation euh, baa doole yi la dee gën a sonal dafa yokka ñàkka poverty la moo yokka te xam nañ ne already uh, during the past two years ñaari at yi passé nii uh, mbiri dunda dafa gën a métti uh, ñàkka dafa gën a yokku si àdduna bi yëpp so soo soo nekkee si situation bi àdduna bi yëpp di si génna yow nga dugg si double digit inflation definitely dafa mel ni uh, coono bi nga xam ne boobu moo sonal nit ñi boobu dafa yokku so nguur gi war nañoo gën a bàyyi seen xel si naka la ñoo doxalee économie bi loolu moo ñu loolu moo jur lii yëpp mu nekk ni ñàkk liggéey bi especially si ndaw yi dafa dafa gën a yokku si réew mi te loolu lu moo jur mooy uh, increase crime rates loolu ñu ngi ko gis si réew mi already social instability te loolu kenn ñaanul ci yàlla mu xew sa réew waaye uh, soo buggee yéen yi bu mu xew sa biir réew war nga make sure ne yow tam nga jóg nga wecci sa doxalin euh, make sure nga doxal sa nguur doxalin boo xam ne mooy euh, waañi coono si kaw askan gi euh, for instance xam nañ ne réew yu bari réew yi nga xam ne réew yi néew doole lañ nguur yaa ngi seet naka la ñoo dimbalee nit ñi nga xam ne ñooy ñoo gën a sonn especially si mbiri dunda xam nañ ne Sénégal fu mu nekk nii ñu ngi head in that direction of social protection because uh, inflation rates normally it's it's uh, way beyond the normal waaye Gambia <sighs> ndeysaan ñun suñ nguur gi lañ lañ nekk di def for example nguur gi war nañoo mun a uh, jël xaalis bi nga xam ne ñu dimbale ko at least ñi nga xam ne ñooñu la macroeconomic instability bi ñooñu la gën a sonal waay instead for instance mënoon nañoo jaay laan bi nga xam ne prime laan la ay dañu dugal ko si budget bi pour wàññi euh, macroeconomic imbalance bi nga xam ne loolu moo sonal économie bi war a ñu use ko fo social protection waaye lan la nguuri Adama baro def recently dañ jël ay paaka foog naa ma Brufut la xaw ma bijiloo foog naa boori Brufut la euh, soo ko xaymayee liñ séedaale ñoom ay ministre yi nga xam ne ñu ne ñoom amuñ fuñ dëkka dañ soxla fu ñoo dëkka weesu million si dollar xaalis boobu ñaata baadoole la munoon a dimbale si réew mi ñaata ndaw la munoon a dimbale si réew mi ñi nga xam ne ñu ngi ñàkk a liggéey war a ñu ngi leen diport si waaye bi wax boobu génnee sax dañ génna di géema di fen loolu ne ministre si amuñ fu ñëw dëkka ministre bi nga xam ne sa am-am sa salari weesu na ñaari téeméeri june si dalasi nga ne yow amuloo yow yaa war a loo am si nguur kon baadoole yi lan la ñoo mën a dundee si réew mi yii ñoo nekk di sonal suñu réew mi ak yeneen doxalin si e, économie bi nga xam ne yooyu tam yu doy waar lañ ay businessman yi nga xam ne benn butuut buñ am si réew mi du fanaan si réew mi dañ koo génnee répatrier ko yóbbu ko bitim réew loolu tam baaxut si suñ économie waxuñ ne businessman waruloo génnee sa xaalis si réew mi loolu war naa mën a am parce que open capital account lañ am si Gambia xam nañ loolu waaye xibaar yuñ nekk di dégg fu mu nekk nii dafa am benn indian biñ téye Dubai ne xaalis la jël raw cash ay millions loolu la jël si baak di tukkee ak moom te loolu international law sax nanguwu ko ñu jàppa ko euh, information bi démb laa ko jot normally réewi Gambia ñoo war a jóg sax dal si kaw kooku ne lu tax mu war a génn ak réew mi with that amount of money waaye instead dégg naa ne dafa am ay ministre si nguuri baro ñuy géem a dimbale kooku sax pour bindal ko ay kayit ay leetar pour wane ne sax loolu xaalis si nguuri Gambia la ñoom ñoo ko yónni ah, Gambian si war na nañoo bàyyi xel si doxali ni nga xam ne yooyu ñoo nekk di xew si nguur gi parce que lii lu moo jur lu nekk lu baax si si askan gi ak si réew mi Gambia xaalis de génnee suñu réew mi especially these businessmen yi nga xam ne ñu bari nekkuñ ay Gambians man benn bank manager bi nga xam ne nekkul Gambian sax one of the biggest banks la doon manage fii mus na ma koo wax mu na ma yéen xaalis bi génn seen réew mi on a daily basis soo leen si tegoon benn small little fii rek bi nga xam ne bariwul sax de mu noon gën a jël loolu pour dimbale seen xale yi pour seen jànga bi gën a baax si réew mi te dis uh, I mean no brainers waaye nguur bi nga xam ne yow xalaatuloo liy dimbale sa uh, sa sa sa réew mi amuloo yërmande si baadoole yi xalaatuloo lan mooy nekka ëllëg bu baax si say ndaw nguur boobu du xalaatee noonu waaye uh, situation bi nu moo demee with this double digit inflation energy crisis réew mi nit ñi sona nañ nguuri Adama baro war nañoo jóg nag parce que dafa mel ni dañoo nelaw moo tax ñu ne good morning Gambia time to wake up xew-xew yu xew foo tam am nañ si ay xibaar démba foo ñi seen situation bi uh, definitely dafa daw yaram for the past couple of months dem be situation boo xam ne dañ am pour tëj ay school dem ba ñu ne hélicoptère wara nu mel noonu moo dugga biir Foni sànni ay bal gaañ fa ay nit ñu bari definitely waa Foni yi euh, eloowuñ li si réew mi Foni is part of the Gambia Foni is Gambia président Barrow maa ngi laa advice nag yëfi Foni bi nga caaxaanee bul ko caaxaanee parce que soo ko toppatoo wutee nga régler problème bi mun naa jur leneen li nga xam ne réew mi yëpp la moo lor te loolu kenn ñaanu ko euh, foo am fii incidents almost guerre moo am biir foo ñi ngir lan problème bu nekk between Macky Sall Sénégal am ak Casamance président Barrow ba tey sa tànka jógu dem seeti waa foo ñi nga jékki-jékki yónnee leen xaw ma 5 millions la xam na xaw ma biñ ko xaymayee calculer ko. <laughs> nit ñi nga xam ne ñooñu ñoo am problème boobu foofu ku nekk li nga am munut la jëndal génna wala saaku malo sax e whole président say nit di torox di soona di tiit di am problème mi fetel yuy tàkka seen kaw nga jékki-jékki rek yónnee leen ku nekk five hundred dalasis nga toog nag sa biir néeg sa biir air condition yaa say interior minister yaa say defense minister mel ni dara xewut Mr President this is not the way to run a country uh, yi mooy nag si series bi uh, good morning Gambia time to wake up man la seen mbokk Modou Sabally asalaamaaleykum wa rahmatullah